dafa am mbokk yu def keroog tawaaf. Mhm. tawaaf mooy dem di wër ca bërëbu sëñ Touba. Mhm. te loolu jaaduwul du du lu kenn xam. Mhm. ak tooñ du lu sëñ bi digle. du lu yoonu murit xam. dafa mel ni saboota sax lay lay sax la nuru. ñu def loola nag. dem di fa def tawaaf. sëñ Touba wootewul tawaaf. sëriñ Touba moo gën a xam ñëpp diine. ñun ñii laafu ci moom yaakaar ko. kenn gënuñoo xam diine ci. ñun aj na nu màkka. umra nañu def nañ ko defati ko kon xam naa màkk bu baax ñaari su ma fa demee sax gidd laa fay doon di gidde ah, kon ku mel noonu doo ñëw man gidde nga ma kon ku mel doo ñëw di ko jéem a dugal ci ay polémique dafa am mbokk yi def njuumte loolu fan yi ba ñu nekk ci di ko jéem a setal yu mel noonu bañ faa amati am nag mbokk yu jël vidéo yu yàgg yoo xam dañuy firi mbindu sëriñ bi sëriñ bi di waxal boppam yi ko yàlla may mi ay jagleen muy wax ni képp koo xam ni mënoo dem màkkatal mukarrama ngir ñàkk ay moyens yoo fa demee ndax yàlla mën na ko teg jaam du am benn moyen bu mu demee mhm. waaye xam nañ ñi farata la ci ku ko man di jullit nga dem fa aji mu ne nag képp ku ko mënul ngir ñàkk doole jooju yàlla na nga def liggéey bi ma liggéeyal yanant bi képp ku ma xemmeem ñëw ci sama dëkk ziyaara ma nga defal ko yool nga defal ko yool bu mel ni ko demoon màkk mhm. lii la ñu wax léegi nag mbokk yooyu lañuy jël bu tawaaf bi amee di monte war suñu vidéo di ko ci taf naan ab Ablaay nii la dëggale ñi def tawaaf yépp pour yàq anam jooju su ko defee day jar nag di ko leeral mbokk taalibe yi xamut ni muy demee yooyu bu ma koy kenn di envoyé parce que du ma leen tontu du leen déglu mhm. man daal ku wan ginnaaw Serigne Touba mën a toomaa wax lu ma doy mhm. loo wax soxlawu ko sa xam bëgguma ko mhm. yàlla bu boobu xam-xam bu wan ginnaaw Serigne Touba euh, Serigne bi dafa wax mbiru ñooñu nga xam ni ay xale yu jàngul lañu yaree di ko di gotti kilifa yu mag yi di leen jéem a yàq ak di xeex tasawuf du ma leen déglu Serigne Touba dafa wax ni wasiatul miidaani laa yuqfiha ibaau namlatin sulukan fiiha ca masaalikul jinaan mhm. dani lef mooy yoonu yoon wu rëy mooy avenue lef xorondom bi taxaw ni maa lànk du ma jaar ci kaw lef bi xorondom bu bañ du ma jaar ci avenue Lamine Gueye wala Blaise Diagne maa bañ mhm. sëñ Tuubaa ne ndax day wàññi yaatuwaayu lef bi dara ni déedéet man naam bu ca sóoboo sax moom la joggane mhm. kon kenn faaliw ko mbir moo xam daal ay million ko yaakaar def ci seen pas-pas ña ko yaakaar ñu la dàq jàng ci nekk ci fànn yëpp mag la gën laa am yàlla dàq la koo jaam mhm. su la doyul maandu ca te bañ ci tooñ su ko defee yooyu yëpp rek ñu wax ko ngir mbokk yi nga xam dañuy am bu ma kenn di envoyé parce que ma tontu ci yooyu man daal li ma dëkk ma laay xool miin naa réew mi Sénégal xam ne muy doxe kuy dox ci lu baax la ñuy bañ a gis lu rafet lu ñu xam ci yow duñu la ko waxal lu ñu gis ci yow man cee indi critique dinañ ko jéem a génne kon jéggal naa ñëpp topp ma kenn sëñ Tuubaa laa gëm ci laay liggéey ci laa fas yéenee faatoo ci laa fas yéenee dekki sëñ Tuubaa laa gëm leneen lu ma nit wax gëw ma ko su ko defee nag xam nañu diine duñu ay dof yàlla mooy sunu borom yanantu bee gën gi mbindéef sunna ñu ngi koy sàmm xasaayit yi ñu ngi koy jàng alxuraan xam nañ ko di ko jàng xam nañu diine duñu ay dof sëñ Tuubaa la ñu yaakaar nag duñu ko yemaleeg benn nitu yàlla ginnaaw yanant bi